ab tënk rek ca la nga xam ne moom moo gën a fees jamono bi ñu toll nii mën nañ ne kat gannaaw ba Sénégal daal day dugg ci li nga xam ne rek moom moo di guuta guuta gu nga xam ne rek mën nañ mënatu cee génnee boppam euh, fi mu toll nii nag génn ko àdduna ñi nga xam ne rek ñoom ñoo ko daal di euh, jota amal mën nañ ne kat euh, gannaaw ni ki démb ci àjjuma ji ci manifestation yi ka nga xam ne rek moom moo ca gën a fees di Modou Gueye mi nga xam ne jamono bi ñu toll nii ñu baree bari ñu ngi doon laam-laamee kenn kat bal lañ ko daal di tiire ba mu jaare fa ñàkk li nga xam ne rek moom moo di ci bakkanam moom mii di Modou Gueye nag mën nañu gannaaw ba li nga xam ne rek moom moo di certificat médical ba daal di jot a génn rek la ñu jot a xamle du lenn lu dul kënekat moom mii di moo du Gueye la ko rey ab balla euh, ca autopsie ba nekkat ki nga xam ne moom moo yëgle li ni mel rek di ay frère am gannaaw nag ba ñu ko daal di amal rek ni ki tey mbir mi ni nag ñoom ña say woo euh, ki nga xam ne rek moom moo yor lépp lu dellu ci wàllu biir réew mi leeralal ci mbir mi nga xam ne rek ñi ngi koy ruumandaat parce que nag ñoom ñoo yor lii di dernier kàddu gi lan moo waral li ni mel ba tax ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di takk der yi di dóor ay bal réel ci kaw ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di askan wi ba moom mii sax nga xam ne rek marchand ambulant la mën nañ nekkat di liggéey di daan dooleem di ñaq ñu daal di koy jot a ci ay manifestation yu nga xam ne rek mën nañ ne la ko waral du leen lu dul njiitum réew mu nga xam ne rek daal dinay taxaw nekkat fasul yéene dem ci ay élection ne rek ñoom ñoo war a daal di dem ci ay élection